أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فرعت إبليس جميع المفاسدين وبسم الله الرحمن الرحيم لازمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جل مصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الأمين وعلى أهله وصحبه ومن تهم بسان إلى يوم الدين mbokk السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wa barakatuhu seen mbokk imam Mohamed Ndiaye moo ci seen ñetteeli fanu weeru koor di leen baaxe seeni yóbbalu koor comme niñ koy faral di waxe weeru koor gan la gu jóge ci yàlla di gan gu tedd te gan googu itam xam ngeen gan gu nekk bu ñëwee ci kër bu ñibbee dina nettali kon nañu fexe ba gan bi buy nettali bu ñibbee la muy nettali na doon lu rafet bu ko defee ñun dinañ ci amee tawfeex nan ko ganale ngad gu war te buy demit namu ñewek terangam nan ko fi fexé ba yóbbale ko loolu moy biitu émission bi ngir euh, cet étranger lorsqu'il rentre il aura au moins quelque chose à amener ou à raconter par rapport à l'accueil qu'on a fait de lui manam su ko defee ñu demaat tout le temps ci xuratul ayni

monu ci dimbalé nit nak képp ku lay soñ ngir nga bax koké amo fayam té jëm yoyé di sunu sëriñ yi dañoo am magal di leen jëmmal di am ndam di wax ci ñoom ngir dennoo indi njëriñu adina ak alakhirah sëñ soñ mu ne ci seen ñetteeli fanug weeru koor su démé ba ngeen dogu ba ngoon ba ngeen di nafilé

nanga ci jàng ñett kul yaa ayul kaafiru bu ne ginnaaw faatiya jàng ci ñett kul yaa nekk soo ko jàngee lii de moom moo la ciy fekk si avantage yi nga ciy ame di nga mel ni koo xam ne am nga avantage yu junni nit junni nit yoo xam ne dañoo jaamu seen boroom ba yàlla jéggal leen seen bakkaar yow avantage boobu nga ci amee

te ñeent rakk yooyu ginnaaw faatiyatul kitaab nañ ci taftal ñetti qul yaa ayyuhal kaafiruun ñu dugal ko ci tëj suñu kon ne xaar ñeenteeli fan bi insha allah ci ñetteeli fan bi kon lii mooy li ñu war a dugal ci suñu kon ne weeru koor kon seen émission yóbbalu koor mu ngi leen di joxaat dig daje ba suba insha allahu rabbi ci ñeenteeli fan bi wasalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu salaamun ala man istaba al huda jërë jëf